laa yaarifuuna gayra lugati dood wa qaala cheikhul xadim fi aksar ashaarihi bi lugati dood wa naxnu jina al yowma wal islaamu waraana li nuqaddima at tahniata li dalika al jaddi al karim fadilatu cheikh almujahid cheikh Ahmed Bamba alladi qaala muxaatiban li aadaihi axrajtumuni naatiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidun ma hiya alwasail inni ujahidu bilulumi lima lam yaqul bilmaarif bilulumi technologie wa tuqaa abdan xadiman wal muhayminu shaahidu bokk yi ñuy déglu ñi fi nekk di ay araab mënumaa ñàkk sànni ay baat pour pour ñoom it ñu déggu ko sang bi mbooloom lislaam mii teew fii tey ci sa kanam ñoom seen maam ya ñoo àndoon ak sa maam ja ci xol ci ñaan ci tiit ba mu naan ida dakartu dalika almabita ñëpp tiit ñu dem ba ci kanam yàlla tànn ab sëtam mu tudd muntaqaa muntaqaa mooy toy fir ci arab lu ñu raffiné allahu akbar jël ko yàlla récompensé ko néeg bu xat boobu mu ne billaay tuuti ma jihaat yàlla na ko noppil maa ngi ñëw récompense bi muy barki démb njaay ci àjjuma ji loolu benn la ñaareelu récompense bi li tëwoon politiciens yi mooy juboo nekk benn yàlla may l'islam bi may daara ji may setu cheikhul xadim mu jër ñaari adversaire yoo xam ne ennemi lañ jàppee woon seen bopp ñoom ñaar ñëpp ñu am yàlla may chance Cheikh Ahmad Bamba mu dal di leen di jubale na ñaar ñëpp ay taalibeem la loolu lu histoire waratu ko fàtte waaye nag maa ngi wax mbooloo mi na leen Touba a été toujours solution maa gën a placé quiconque pour wax loolu ndax maa liggéey ak Abdou Diouf pendant vingt ans réew mi jaxasoo mu ooma ne ma li may jàq bariwut quelle est la solution ma ne ko il faut aller à Touba ma ñëw ci sëñ Abdoulahat mu baax ba ak sëriñ ma xaw ma maamun maamun Moodu maamun ñang yaakaar naa xaw ma mi ngi dundam déet moo daan sama facilitateur bu ko defee mu mu ñaan la ñuy ñaan yëpp yëf ye yëf ye dellu gannaaw Touba toujours moo masa doon solution kon nag tey jii day mbooloom lislaam mii tey sang bi ñu ngi lay ndokkeel yow nee naa làmmiñ woo xamee ne Bachiru la tudd day yaakaar naa dana am yaakaar yoon woo xamee ne làmmiñ woo Bachiru la tudd muy aji bégle yaakaar naa ne dana am yaakaar kon ñu ngi lay ndokkeel ci turu lislaam bi yépp sama mag Cheikh Ahmad Tidiane daf ma nettali biig mu ne ma ah daaw nag moom demoo ma ne ko ah da ma defoon nii waaye ndeke Touba kenn mënu la faa wuutu kon ñu ngi lay ndokkeel ma ne ko mun fàttali ma ne bañ demee ci ca Cheikh Mouhamadoul Fadil 54 ñuy ay xaleel ñu wàcc sëñ Fallou song sama baay ne ko ah sama mag ju baax ji falay jeexale nag mu ne ko toog naag sa baay ñaari yoon mooy Cheikh Ahmad Bamba mu di ma wax ci doomam yi ba léeg-léeg mu tudd jenn doom ne ma ganeegul àdduna doom sëñ Tuubaa ne ma bu doon saako sama doom yi ganeegul àdduna gi yëpp benn bu ne la ca yàlla def xamal na ma kon kenn du Cheikh Ahmadou Bamba ma wax la sama baay waxoon rek jazaka anna ilahul alamina faqad ahyayta min manhajin fi l wa daahi aataytana bi kitaabin la nazira lahu arwa galila sodana baada luwaahi huwa aljalalaani tafsiru limansibikum misbaahu ilmin ka dawi subhi lammaai wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci kër gi eh, bokk sek sëriñ bi bisam bu tedd bi nga xam ne dafa ñaanoon boromam ne dama bëgg ñëpp santale ma ci yàlla ñu ñëw ànd ko ak yéen ngir santale ci sunu borom sëriñ Tuubaa kon su ko defee bala ñu jox sëriñ bi ñu fàttali mbokk yi programme bi muy waxtaan wi nga xam ne mooy am fii ci baas bi muy waxtaan Rawdu Rayaahiin waaye ñu fàttaliku ko cérémonie officielle bi ñu xam ne suba ajjuma la incha allah mise à place bi dana tàmbali 7 kon bëgg nañ képp koo xam ne kilifa diine nga di ci ñëw euh, mën a agsi 9 heures ci barab bi ngir ajjuma ajjuma ji dafa teel waxtu wi dafa teel léegi euh, ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin ni ko alquran santaane wa iza xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi ahsani minha aw rudduha kon ñu ngi nuyu sunu bokk jullit yi tedd yi fi teew yëpp di mboolem këri diine yi nga xam ne ñoo fi teew ci ndigal ak turu ak Cheikh Mouhamadou Mountakha alxalifatul am lil muridi xafidahu llahu taala wa zaada min nasrihi wa tamkinihi kon ci turam ak ndigalam lañ fi teewe di leen dalal jàmm ma ànd ak Cheikh Abdou Lahad ni ñu ko baaxoo def at mu jot ñoo daa ànd liggéey ba ñu ko tàmbalee ba léegi nii ñu àndaat ko ak sëriñ Abo ak sëriñ Abdou Khodos ñi di nuyu bu baax mboolem kilifa yi tedd yi fi teew sëriñ bi nee na mi ngi leen di dalal jàmm ci bis bu tedd bi nga xam ni bàyyi ngeen seen yitte. tëj seeni kër ngir def istajibu lillahi wa rasul isa daakum li ma yuhyikum kon nee na mi ngi leen di ñaanal ci yàlla mi nga xam ni moo daale ku jokk bokku lislaam bi lam ci daale yàlla leen ko fay Cheikh Mouhamadou Mountakha nag wax na ne di ginnaaw bu mu bu doon nuyoo sant leen gërëm leen xam leen ne cant gi am na fu mu tàmbalee amul fu mu ndax kenn ku ci ne bu tànnoon ci këram ka gën a woyof mbubb mu yebal ko it bu agsee mën koo teewal ngir xam ne fa mu nekk moom la fa teewaleen waaye nag kenn ku ci ne dangaa bàyyi sa yitte bàyyi sa lépp ak responsabilité yi nekk ci seen loxo ngeen bàyyi lépp ñëw ànd ak moom bis yi loolu nag na ngeen xam ne fi mu toll ci moom yàlla rek moo xam dayo bi kon lu leen di ñaaral di jokk bokku lislaam gi nga xam ne boo leen boole nu ko suñu boroom santaane di xam ne it li nga xam ne nongul ngeen ko ko mu yëg ko bu baax mooy itam mu fas yéene li ngeen ko jox mu delloo leen ko ndax xam ne cër bi ngeen am ci yéen kon mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen sant ji ca taxawaay yi weesu rawatina ci ubbiteg Masaalikul Jinaan ndax mboolem këri lislaam yi kenn ku ci ne xam nga ne eh, bis ba sa bisa jàkka ji itam ku ci ne jàpp nga ne yaa ko gën a fonk sa morom ku ne jàpp nga ne jàkka ji yaa ko moom muy wa yuuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa loolu nag sëriñ bi neen xam na ko kon nag yàlla mi nga xam ne moo mën a dimbalee tamar fay mi ngi leen ñaan yàlla leen fay fas yéene moom itam incha allah lépp lu xew ci yéen rek mu ànd ko yéen kon mu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di rafetlu kàddu yi nga xam ne nag sëriñ Arabi Niass moo ko wax ci seen tur ngir xam ne bu ci kenn waxee rek yóbbaale la yëpp kàddu yi matal na rafetal na ba daanaka luñ ci waroon wax rek moom wax na ko kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di xam leen ne lii kat mooy def ngeen li lislaam santaane def ngeen li leen war itam ngir lii rafetal lislaam di rafetal bokk yi di sàmm réew mi. kon li ñuy wax attaayusu silmi yi yéen def ngeen ko kon ku leen koy lebalaate ku leen koy fay da leen ci fekk si waaye yéen def ngeen ko kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla suñu borom mu fay leen te yàggoo seq yàggoo jëflante moom yàggoo jëflante yoonu murit ngeen xam ne sëriñ bi neen téye na leen gi téye na leen couleur gi mi ngi leen koy sàmmal di ñaan yàlla fay leen eh, gën sàmm itam li nga xam ne moo ñu boole ñun kër yi yëpp muy lislaam ji suñu borom sàmmal ñu ko ba dara bañ ci am aw yoon ndax na lu yàq ngir xam ne kat Sëriñ Tuubaa waxoon na ne benn noon rek lañ am muy iblis inna cheytaana lakum aduwwun fattaxizu aduwwan moo tax moo waxoon ne yaar rek fi nekk inn ak innama mun ne innama mu ne ixwatun ne ak tey la inna cheytaana lakum aduwwun mu ne ak nax la mu ne waaye mu ne tey nax gi ci inna shaytaan lakum aduwwun mënta yàq tey gi ci innamal mu'minuuna xoto kon nag nañ xam ne suñ diggante yàlla suñu borom ba mu ko bindee moo ko aar sàmm kon ñu itam li ñu ci war mooy di ko jokkalante di wax lu baax di wax lu rafet kenn ku ci ne lu sa moroom xewle nga gëm ne yaa ko xewle loolu bu ñu ko dee def rek lislaam ji di gën a yokk day gën a màgg day rafet ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp comme ni ko sëriñ Abdou Lahad bu soo waxee léegi ñu xam ne cérémonie bi suba. sëriñ moom ajjuma dadaa wax ne dara mënu cee ànd lu weesu jooxe farata yàlla ji moo tax mu bëgg nag buñ ko mënee ñu fexe balaa fukki waxtoo ñaar di midi cérémonie bi jeex loolu lay njëkkante moo tax nag kon dañuy fexe ba mën a teel a tàmbali comme ni mu leen ko waxee rek ngir waxtaan bi mën a gaaw jeex bu ko defee ku mën a a ñëw ñu tàmbali rek ko agsi fekk ñu ci biir ndax ajjuma ji moo tax di suñ mën a xaar nit ñi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.